des LHQ proprement dit ay responsable LHQ ñoo fi am nekk góor di LHQ moo fi am chaque jour yor ay range rover def lu leen neex yor seen village, ni tout c'est des Il y a des femmes qui qui qui lèchent les culs ici des femmes qui lèchent les culs ici. chaque jour ñu ngi LHQ dit c'est tout donc les gens m'interpellent on vous parle de Dubaï Port à Petit les filles mangent du caca les filles sénégalaises mangent du caca ici commencé nañ day lañ commencé day day et c'est pas que les filles sénégalaises on a des ici c'est partout c'est tout le monde les gens ils le font c'est ça ça n'engage que eux une fille qui va manger du caca pour de l'argent ça n'engage que cette fille là ça n'engage que elle ça n'engage que elle qu'elle se fasse des millions avec du caca ça n'engage que elle mais bonne gi c'est de bi mi fille.

ñu fay la nga xool noo def bu dee liggéey mooy sa option demal nga job weer bu dee ñu fay la sa xaalis duma papa yi kenn duma yaayu kenn ba nekk fi naan si si si si si ndax ku lekk day boo géexee xam ko wii fay ku lekk day boo géexee xam ko ñaata jigéen ñoo fi nekk di yor ay apartement cinq cent mille huit cent mille liggéeyoo ñu ku leen di fayal dañu am ñeenti far ñeent ñu leen di fayal appartement ku nekk tëdd ku ñëw tëdd kii tëdd dem kii tëdd dem kii tëdd dem kii tëdd dem ñaata laa fi gis ñaata. donc am na loo buñ ko bëggee wax dañuy nekk ay ay ay ay ay ay ay arriviste il y a pire dans ce pays-là moi je vois pire dans ce pays moi j'ai vu pire dans ce pays-là et pourtant on vit avec donc vivez avec faites comme moi faites comme moi bu dee gor nga sa sa yaram yaramu góor nga am deretu gor nga am go work for yourself demal nga move sa body nga dem liggéey